mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci seen euh, émission dem seen émission démb nag tey daf leen demal ci dëkk bu mag boo xam ni euh, góor gu mag bu ñuy wax Cheikh Oumar yi moo ko sanc booba ak léegi am na téeméeri at ak juróom fukk ak ñaar dëkk boobu nag xam nga dangay ngay dem ba Kédougou jóge fa dem Saraya soo jógee Saraya nag jaar ci piste bi ba egsi ci dëkk bi nga xam ni mooy Saruja di dëkku ñaan di dëkku nit ñu baax di dëkku alquran di dëkku jaamukati yàlla yi di dëkku mag ñu baax dëkk boobu nag tey moom lañ ñëw pour xamale leen ak moom አረስጌን ሳይንቴማ ነቶ ሆኖ ደ ነቶ ሆኖ ናሮኝን ካ እንፋሉ ናኛያ እንስዶ ፎቶ ባይሰብየ ስጊ ኒን ቢቴማ ነማ ፈራንሲ ጋ ፉይ ፈንዲንት እንደተ ወያቤ ነው ደክ ቢ ñinkoy sàncee maanaam ñi ngi ko sàncee ak ci 2020 bu ñu nekkee ni mat na téeméer at a juróom fukki at téeméer at a juróom fukki at ak ñeent e, ki ko sance mooy Cheikh Omar Diakhabi benn wali bu mag la macha allah moom dafa tombé jamanam dafa tombé a benn wali bu ñu wax seexu Fanta Madi Kankan ñoo tollo jamono ki ñu wax Cheikh Omar Sarouja moom wali mu wali kaasif la woon wali bu mag la. waaye waa réew mi xamuñu wóoliyam waa bees dafa am benn géwél bu mag bu fi nekkoo am moom moomu tàggoo ko dem mu ne damay dem siyaare ji Seex Fanta Madi Kankan bu mu demee siyaare ji ko eh, Kankan après bu mu tàggoo eh, benn géwél boobu Seex Madu Seex eh, Fanta Madi Kankan bindi leetar benn leetar jox ko mu lii boo demee nga jox nga joxal ma ko Seexu Omar Saroudia dañ koy waxa su bo euh, boobu dañ koy waxa Fodé Omar comme nit ñi xam nu ay waliyu la waaye bu yàlla defee kooku dem ñëw mu ne ki ngeen wax noonu ay Fodé Fodé Omar kooku waliyu mu kaasif la mu bindi ko benn lettre jox ko mu ne boo demee nga jox ko Seexu Omar mu ne Seex Fantamaadi bu mu ko joxee lettre bi géwél boobu mu de def ko ci poosam dem jël puso ñëw ko bu mu mu àggee fii mu noppalu ay fan mu ne léegi benn bis mu ne xaaral ma jël eh, eh, mbubb bi ma génne fa lettre bi jox ko Cheikh Fanta eh, Cheikh Cheikh Omar Omar Sarouja ko bu mu jëlee mbubb mi fekke bu mu ñëwee ba balaa muy ñëwoon sax lettre bi Cheikh Omar xam na woon Cheikh Fanta maa di na ko lettre ci kattan yàlla moom jot na jël na lettre bi ci. ci ci ci ci poosu waaji bi balaa mu koy wan. Eh, géwél bi bu mu lambee poosu bi dagga kii bi nu mu nu mu ko ñëwoon pour jël leetar bi jox ko Cheikh Omar gisu ko Cheikh Omar gis gis ko mu sonn lool mu ne ah yow yow lay la la ngay wóor mu ne ah dafa am on benn lettre bu ma seeru Fantama di joxoon kankam pour ma jox la waaye te gis nga ci suma poos bi laa ko dugaloo ma ñëw ko pour mu bañ a reer waaye gis nga maa maa dagg kii bi li ma ñëwoon waaye ma ko fa après seeru ma sar saruja yëkkate ay fu muy julli tapi bi mu génn lettre bi mu ne du lettre bi mu ne lettre bi la. boobu lettre moo ñu wan ni ndek Seexu Omar Saruja wali mu kaasif la. balaa boobu xamuñu ko woon bu loolu amee la xam ni ñun ñëpp ndax Cheikh Omar mu kaasif la réew mi ak àdduna bi ñëpp noonu lañ ko xamee te amul woon benn beneen liggéey bu duul lislaam ak i toolam ak daaram Cheikh kon dundam noonu lawoon woon dafa nekkoon de taxawal diinul islaam de ko dundal xitam Eh, mosoon naa dégg saa ci benn waa ji Cheikh Oumar dafa am benn nawet benn nawet fleur bu ñu jigéen ni dafa feesi ba bloqué dugg ci àll bi fekke benn waa ji jóge fale ci gannaaw côté Saraya tam boobu de ay xiif moo amoon parce que tam boobu lu ñuy lekk bariwul mu ñëw ci Cheikh Oumar Sarouja mu ne ah Cheikh Omar man damaa ñëw de waaye suma suma famille amul benn dépense mu ne ko nanga ma mu ñal fan yi rek fan yooyu fekkee de fe eh, fleur bi bloqué waa ji bu mu ngi fi de jaaxal famille bi xam na nu mu ko bayee te fleur bi mu ngi ni ci diggante bi pont amul gaali amul bu muy dëkk nekk fi ba Cheikh Omar gis jaaxale waa bi mu ne léegi incha allah nanga nga préparé incha allah suba da nga da nga dem bu ñu demee ba ci gannaaw fii mu ne waa ji bi na nga bu mu gommee rek bu mu ubbee botam rek fekkee jàll na fleur bi a bagasam mu ne waaye boo demee bu ko nattal kenn nag boo ko nattalee kenn rek loo am yaa yaa yaa yaa yaa utal sa bopp loolu mu ngi ci ay. kii maanam bu nga xam ni moom def na ko eh, mu eh, bokk na ci kiimaan Cheikh Omar yaayam bu mu ko ombee depuis mu omb ko ba yàlla def mu usin ko bu dee nawet musul taw taw bi ki kii ko laal ko ba mu usin nu mu tawee tawee tawee moom yaayam fu mu nekk taw bi du fa fa du ko laal loolu bokk na ci kiimaanam e Cheikh bu ñu yaayam bu mu koy bu mu bu yàlla defee ba mu ko bu mu ko musee dafa àndal dafa àndal benn mandarga bu bu bu bu bu kawtif e soxna yi mag e soxna ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wetu yaayam ndax dañu am lu dañu dañu gis loo xam ne lu lu lu kiimaanu la ñu ne dañuy daw ji woo bàyyi Seexu Omar mu ne a ah, sa jabar bi usin na waaye nag nu luñ gis ci moom lu kiimaan la na nga dem ñëw seetu ko boo baayam ñëwee xool liir bi dafa nekkee dafa fekke mu am ñaari mandarga yu yu kiimaan benn bi ci denn bi la nekk benn bi ci gannaaw bi la nekk mu ko xoolee ba pare mu bindi lum ci gis bu mu paree mu ne na mu eh, mu mu digal ñi sangu xale bi bu yàlla defee mu nekk a baayam mu dem ko eh, mu yóbbu ko ay eh, ci daara pour mu jàng mu nekke noonu mu nekke noonu ba mag bu magee baay bi wee bi fekkee bu mu xoolee mu xam ni moom lu ay lu muy dund fu mu ne nii ba desetul lu bari fekkee xale bi itam Cheikh Omar e, misore na mu woo ko benn bis mu ne ko léegi na nga ñëw li la yàlla mayee oon la yàlla joxoon nga ay àndaale a moom maa ko maa la ko doon dencal dama doon bañ ma jox la sa e, nga nekk xale nga dem sànni ko wala keneen jël ko ci yow waaye comme léegi masor nga am nga xel léegi ya bu yàlla defee bis bu ma génnee aduna rek li la yàlla joxoon mu ngi nii lépp li ma fi bay nag bu ci am benn soxla lépp li ma ci bay li li ma fi bay li la yàlla dénk ñaar yii maa ngi lay koy jox lépp li ma fi bay rek nang nang nang ko gan eh, wan gannaaw bu yàlla defee moom yàlla defee ay dundam gàttal dafa tàggoon doomam mu ne bu yàlla defee man ma génne àdduna fu ñu dëkke nii nanga fi jóg danaa la jow ay mandarga fi nga war a toog boo demee ba visité benn barabu boo xam ni nga gis fa ay maanaa fu ndox mi de génn ci suuf mu nekkee ñetti place boo gisee foofu fu mu manta doo rek nanga nga na nga na foofu ngeen dëkke foofu nga ngeen déplacé fi nga fi ma nekke nii ba mu ne soriwul fii ci gannaaw fii la nekk waaye Baye Cheikh Omar foofu lañ ko denc waaw mu ñu ngi koy tudd Seexu Seexu Sanusi benn bis mu nekk benn bis Seexu Omar mu nekk di robb ci àll bi rek muy dox muy doxante ci àll bi baay bi maanaa euh, signification bu mu bu mu ko waxoon mu gis ko fii ci tund bi bu mu de bu dem ci dëkk bi mu ne a ah, wiye bi de. lu mu ma waxoon pour foofu la ñu war a eh, dëkk place bi gis naa ko tey kon war nañu tux fii ñi dem foofu. boobu la ñuy ñëw sànce fii. moom dafa nekk woon ay rakam keneen ki Fodé Boulaye la tudd keneen ki Fodé Madi Sere la tudd keneen ki Fodé Madi la tudd keneen ki Fodé Lamine la tudd. ñetti rakkaay mu ñoom la ñu àndawoon ñëw sànc fii ñi nga xam ni moom la nekkaloon ci jamonam bi ñu sànc fi xelam bi ci mag yi ñi ñoom la je ñoom la jàpp eh, ci diir boobu mu am benn géwél bu bu mag jóge fale ci Gàmbi ñëw siyaar ji Seex Umar de uuti ñaanam ñi ngi koy wax a Jalibaa Saaxo géwél boobu jógee Gàmbi ñi ne Jalibaa Saaxo dafa àndamaa doomam fii mu àndaa doomam fii e, fekk ay période boobu période kii la lu ñuy récolter récolter boobu yàlla def mu ne doom e, e, doomam bi nee na suma baay nanga nga nekk fi asirim bi man demay àndaa taalibe yi dem tool bu demee bu ñu demee tool fekk dañuy diq gerte place bu ñuy diq gerte taalibe doomam boobu jaay doomu géwél boobu mu déq gerte déq gi gerte mu seeti benn kii gerte e, kii mu ne ah en tout cas gerte bi meññ na de xam naa sirim bu bisi bu mu fi àgg rek dana kontaan parce que tool bi defa baax na gerte toolu gerte bi baax na lool après booba fekkee baayam ak sirim bi mu ñu ngi fii ci kër gi ak après moom mu am mu muuñ bu mu ah géwél bi laaj ko mu ne waa seex bi seex la lan lan lan moo xew may gis yow kenn ngay bugg a muñi de bugg a mu ne lan moo xew mu ne deet dara xewagul mu ne we aman ah, tiiti naa de parce que yow kenn la man waxuma yow may gis ngay muñ rek mu ne sa doom bi àndaa taalibe yi de déq gerte doom bi dafay yëkkati benn kii gerte mu ne ah sirim bi bisi bu mu fi àggee de dana kontaan ndax tool bi baax na gerte yi meññ na fekke effectivement effet et noonu la amee doom bu mu ab bu mu ñëwee noonu la ko nattale dooma bu mu ñëwee mu ne yow da bari bëri wax yow tey liggéeyul ci liggéeyuloo ci tool bi yow di wax rek nga nga fa nekk xale yi ñu ngi liggéey yow yaa ngi topp wax rek yaa ngi toog da wax rek mu ne su ma wa man waxuma fa dara xanaa su suñu ci biir liggéey bi yëkk na benn kii gerte ma ne ko ah ko gerte bi meññ na de xam naa bisi bu sirim bi àggee rek fii dana kontaan lu mu ne loolu laa wax mu ne loolu la fi nattale kon boo fa dematee bul nokki bul nekk di wax na nga continuer sa liggéey <laughs> lépp loo fi wax rek sirim bi mu nga yow dala ko dala dégul jël baa boobu géwél boobu bu mu delloo Gàmbi dafa ñëwaatu côté Tamba bu bu ñëwee côté côté Tamba mu fekkee fa benn benn sëriñ bi nga xam ne dafa da moomu joolaa la dafa jànga woon ci eh, ci sëriñ waaye mu jël boppam feetale ko eh, sërifu yi mu ne léegi dama bëgg a jalba nga gunge ma dañee ko pour ma génne ma dem ci sëriñ de ñaane hadiya après ñi dugg ci côté Fouta la Guinée bu ñu ñëwee ba jóge Fouta ñëw ci benn montagne bu gudd ñi toogu ci benn ron garab bu mag de noppal waa bi ne ki may dem ki may ki may dem ci moomu nii bu dee wali yu xaqal la mooy Cheikh Omar bu ma fa bu ma fa àggee rek dana ma may un million waa ko gungee jalbaa mu ne ko ah wax nga lu lu de waaye wóor na ma ni Cheikh Omar woli mu kaasif la te boo fa àggee mu nattale li nga fi wax bu mu waxee loolu mu ne ko mu yëkkati ay ci ci tapimam mu génnee caabam mu sànnee mu sànnee eh, waaji bi mu ne demal ku gomina yi woli si ñu ngi toogu ko woli si boo sotti rek loo fa fekke de nga fay fekk fekke million nga xam ni man woli xaqal la àgg naa ci yàlla te noonu la noonu la amee woon itam mu am benn waaj ji maa ngi nar a jógee ñëw fii eh, mu moomu dafa doon bugg wuti ay nekk nguur fekke benn géwél ñëw fii ci Cheikh Omar da ko ñaan pour mu may ko mu mu mu amee alal mu ñaanal ko donc mu ne na na nga fi nekke ay fan rek incha allah danaa la yeew nga dem bu fi nekkee ay fan rek. benn bis mu ne géwél bi yeew naa la nanga nga dem waaye boo fi jógee dangaa tase ñetti nit ñoomu ci man la ñuy ñëw boo boo dajaa ñoom rek nga ne leen lu ñu yoroom ñu pour de ko dama ko indal boo tasaa ñoom ñi jox la ko bu leen neexee ñi dopp dem seen aajo bi faj na bu leen neexee ñi àgg saruja te boo boo leen itam nanga leen ne yow diw eh, sëm sangam nga yor diw sem sangam nga yor ba ñetti yëpp mat bu ñu dajaa moom mu ñu ne ah sëriñ bi nee na de bu ma dajaa yéen ke ki jiitu som sangam la yor na ma ko jox nangam keneen ki nangam la yor na ma ko jox keneen ki nangam lay fekk ñoom ñëpp lu ñu doon indal sëriñ bi loolu la. mu ne bu leen bu ma leen ko waxee loolu bu ngeen ko gomee ngeen jox ko bu leen neexee ngeen àgga ci bi bu leen neexee ngeen dopp seen aajo bi faj na bu mu tasee a ñoom fekke noonu la. bu mu demee àgga e, ba mu dajee ak gaa yi e, ñoom ñetti lañu bu mu leen ko waxee ki nekk ci digg bi moo njëkk am xel boobu mu ne a ah, wax dëgg yàlla sirim bi li mu wax nii som bu mu wax nii. moom laa koy indal lu man loolu laa yar comme wax na loolu man mosuma laa gis yow mosuloo ma gis kon man góom naa sëriñ bi moo la ko wax am jox naa la ko ki nekk ci kanamu itam mu ne ah wax dëgg yàlla lu mu wax de man itam loolu laa som boobu laa yor ki nekk gannaaw moom wax noonu ñi dajale lu ñu yoroon yëpp jox ko jox ko waaj mu ne waaj bi ne ndeke man dama foogoon sëriñ bi dama defa ma doon kii rek dàq ko pour ma génne ma ma ma génn ci ci kër gi ci wetam ndeke waliyu la ndeke waliyu lu mu xam man eh, keneen xamul ko eh, kon lu mu wax mu mu kontaane lool waaye ji nee na nag comme yi eh, sëriñ bi wax na lool man ñin gom nañu loolu waaye il faut ñi dem gis ko mu dem gis ko saafanta moom nga ñetti ñoom jàlla ñëw saruja fii géwél bi continuer yoonam ak ak kontaanam alal ju bari ñetti yow bu ñu bu ñu ñëwee ba àgg fii fekk fi Cheikh Omar ale eh, radiyallahu taala anhu mu ne mu ñi nattale ko lu ñuy dajaa waaji bi mu ne waaw noonu la maa loolu maa ko ko waxoon eh, mu ne eh, dañu ne maa an ni góom nañu ko waaye dañuy ñëw few dañuy wax ni il faut ñu ñëw fii gis saafanta yow comme mosuñu laa gis sa la ñuy dégg la ñuy dégg yow mosulu ñu gis moo tax ñu àgga fi fekk ki nekk ki kii jëkke woon joxe ki nekk ci digg bi moom def moom moom bu ko nguur waaye balaa mu delloo fekke nit ñi ñoo doon ci yi foo mu toogu ci nguur mu demee bu mu àggee rek amul benn mus benn musique la amul ci mu toogu ci place bu bu. Fodé Cheikh Omar Diakhaby bu ñu ne ko ci wàllu ci Sarouja. ci mbiram la ñu nekk tey premier taawam bu mu gaañu 1950 la gaañu mais liggéey bu mu bàyyi ci doomam yi ba léegi ci loolu la ñu ci topp mooy tool daara parce que loolu la ñu fi bàyyi ñu ne ay setamam la donc doomam premier bu mu gaañu ku ci topp mooy Sodé Seexu Sanusi Jaxabi mooy Sanusi Jaxabi mooy taawam mooy turundo papam bu ci topp. mooy El Hadj Mamadou Dia bi mooy imam ratim bi woon Kédougou parce que dañu ko ñëw jël fii pour que mun dem nekk ci imam Kédougou juma bu mag bu fa nokk mooy dem deux mooy ñaareelam ñeenteel bi mooy Fodé Salimu Dia bi ñeenteel mooy El Hadj Bangal Dia bi mooy eh, El Hadj Motar Dia bi bu ci topp Ba Fodé Dia bi bu ci topp Alhaji Selou Dia bi bu ci topp. mooy bu ci topp mooy alaaji sori jaxa bi tey mooy loolu mooy nekk ci xalifa tey mooy li nekk ci xalifa bi tey mooy alaaji sori jaxa bi bu ci topp mooy alaaji mamar jaxa bi ñoom ñëpp ay doomam la boo moy porte parole de xalifa bi tey moo nekk ci chef de village bi tamit tey fi ñu nekkee ni saruja doomo yu góor yi ñu béy ñeenti doom moo ci des tey ñaar jigéen ñaari góor ñaari jigéen ñoo des ñoo toogu noonu fale ñoom ñëpp ay doomu saxu Omar la lu ci dese ñun ñëpp ay setamam la yu góor ay jigéen donc lu liggéey bu ñu fa moom mooy alxuraan béy tool loolu la ñu nekk ba tey ñu ngi ñaan yàlla pour que yàlla ñu la yóbbu ci kanam kanam. léegi nag ñu jox la rek nga tëj te nga defal nu ñaan ñu dellu ci liggéey ba. salaamaaleykum wa jamaatul muslimina wal muslimaat ngi leen di nuyu di leen nuyu di leen siyaar siyaar bu baax. Eh, seen tànga bi ngeen ñëwee tey ah, kontaan nañu ci loolu loolu loolu lu xale yi ci affaire Cheikh Omar noonu laa deme eh, alhamdulilah bu ma sance fii lu mu ñaan ci yàlla nag képp koo xam ne boo ñëwee sa dëkkam nga ñëw sa aaju yàlla ne mun na ko faj yàlla nga ñëw fi moo ko de su fekkee yàlla xam na yaa ay milliards sa boo ñëwee sa dëkkam sa soxla bi du faji wala yàlla indel ma loolu ñun ñuy nekk ci gannaaw mu gëm nañ ci loolu parce que temps de Senghor am na ñuy jógee Dakar jël avion ñëw Kédougou temps boobu Tamba Kédougou amul yoon Ah, bu ñu ñëwee Kédougou jëli ay euh, Land Rover yi ñëw ba ci dex bi yemu fe mënuñu dugg comme yàlla def na seen chauffeur moo war a amoon ñaan moom fexe na bi mu dugg ci dëkk ba ñu ñaanal chauffeur bi mais patron yi ñoom ci dex bi la ñuy yem alhamdulilah ci gannaaw loolu aussi am na ñiy jógee encore Dakar. ñëw be ci dex bi encore foofu la ñuy yem am na ñu jógee Tamba ñëw Kédougou jëli ay moto yi ñëw bugg nañu ñëw fii mënuñu ñëw dañ ñëw benn faji ñu bàyyi yoonu Saroudia dem Satadougou eh, alhamdulilah ñun ñi nekk ci gannaawam gëm nañu ñaanam yàlla nangu na ko moom lu mu wax rek yàlla dina ko def lu mu wax rek yàlla dina ko def parce que am naa jamono am naa benn paa xaritam la woon moom weer bu nekk day ñëw fii di nuyu si ko yàlla defee benn bis mu ngi ñëw jaaro muy tomb na ci dex bi kenn gisu ko mu ñëw wax ko góor gi wax na ne ko ah, yàlla mën naa indi sa jaaro bi ñu fanaan fi rek ci suba gi gi woon na ko jaarom ah waa na ko amaan yaakaaruma si kii dina ko am wala déet parce ci ndox bi laa yaa rocc te kenn mënu ko gis yow nga eh, am foofu fi nga toogee nii ah kon nag lu ñuy wax sa mbir mi ah, gëm naa ko tey ah comme yoon noonu la ba ci loolu ñuy nekk ah, doo may keroog bu mu gaañ dafa bàyyi fukki doomu góor ak ñaari ñi am tuuba mais am na ñett doomu xarit la tam boobu mais nee na année boobu nee euh, boo neex yàlla moom lu mu defee ci Saudia xam yàlla xam na ko te moom xam na ko mais doomu yi dina am ay juróom ñeneent ñi war a jógee dëkk bi dem euh, siyaare Kaaba ñëw fi bi nee na am na benn naar euh, <coughs> kii la woon moom itam ñëw na di siyaare góor gi ñu ñëw ci juma juma bi di julli naa naar bi nee na eh, ah Cheikh Omar war nga def juma parce que juróom ñaari nit boo ñu jullee ci jàkka bi rek war na nekk juma góor gi ci biir juma nga julli ne parce que ñi war a taxaw juma bi ñu ngi ñëw du man mais sama doom yi ñoo ko tabax incha allah te ci biir juma nga jullee ni de yàlla defee Euh, ñetteel doomam El Hadj Bangal moom dem mag bu mu jógee Makkana mu ñëw yebal ci ñett yi ñu tabax juma bi juma boobu moo taxaw ne El Hadj moo ko wax mais seen papa moo waxoon mu ne ñi war a def juma ñoo ñu ngi ñëw te yàlla indi na loolu te nee na ñetti ñeneenti doomam daal ñoom dañu dem siyaara ci Kaaba te loolu am na El Hadj Bangal dem na El Hadj Moutar na El Hadj demu na El Hadj Sellou dem na El Hadj Seyni dem na El Hadj Lassana dem na man El Hadj Sori dem na El Hadj Mamadou na mooy suñu caat kon nag xam nga waaw xam leer na kon naa ci loolu la ñu nekk eh, fii kattan yàlla ku ñëw fii eh, pour ñaan soo ñëwee ñu la ñaan yàlla dina faj du man du ñun ñoo ko defu de yàlla moo ko def may ko Cheikh Omar te loolu leer leer nañu loolu du am ñaari xel sunu euh, sunu euh, département Saraya fii moo jekki tabaxa juma département Saraya El Hadj Bangal moo jëkki dem mag département Saraya Saroudia moo am gàmmo bu Cheikh Omar gaañe weer bu mu gaañe weer booboo jotee rek dañu dañu defu gàmmo pour nit yi ñëw ñaanal ko ci bétey ñu nekke Eh, alhamdulilah fu ñu nekk ni ñu ngi waaj gàmmu gi boo neexee la eh, avril dañu def gàmmu ah, kon naan loolu moo am léegi seen tànqal kontaan naa ci loolu maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla faje seen soxla yàlla yàlla muuse leen ay seeta adnan yàlla na yàlla muuse leen masibu adna yi eh, masibu yi bëri na dina mais luñ ñaan mooy yàlla ñu muusal ci lislaam yi ah, loolu laa am wax ki di leen wax daan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wante nag bëgg naa nga tëje euh, parce que senegal réew yi ko wër nii fi ne dafa bari coow aku ay te ñun euh, bi avant nu fii ñëw dégg na ni fii place ñaan la ma bëgg nga ñaanal Sénégal d'abord ba yàlla aar ko ci lépp luy lore ak lépp loo xamante ni day indiw ay te def ci biir nit ñi ñoom ñëpp ñu juboo xam ni juboo rek ci jàmm ci la lépp xaj. aywa bisimilah sëriñ bi li nga wax dégg naa ko gàmmo bi ñu ma waxee noonu ba ñu ñaani gàmmo ñaani bi la ñu dek boo ñëwee def gàmmo du ñu def def na dugg fii génn xamul rek la jàng ñaan ci réew mi yàlla indi jàmm ci réew boo gisee nit yi am jàmm jàmm moo am. su fekkee jàmm amul ci réew mi duñu amu jàmm te e, e, jógee gouvernement bi de ñëw ci population yi ñëpp la ñu ñaanal wa neex yàlla aussi ñu ngi ci loolu taxawaay boobu ñu ngi ko def bu aljuma bu nekk aussi boo ñu julee ba pare dañu def ñetti fatiha pour jàmm ñëw ci Sénégal waxuma pour jàmm ñëw saru jade senegal la ñu wax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 may gërëm bu baax nag ci club xam sa bopp Cheikh Diaby di journaliste nekk fii ci 2 ndax su ma xamanteek ñooñu mbaa a dem fa ginnaaw yàlla Cheikh Diaby moo tax ndax dëkk bii dëkku maamam la di nuyu aussi bu baax Mamadou Adji Cissé di meeru Kédougou di leen gërëm di gërëm bokk yépp ñoom jaxa Jaxabi di gërëm waa Saroudia yépp di ñaan xalif bi nag ñu continuer ñaanal Sénégal ndax suñu réew mi yàlla def fi jàmm ki leen doon présenter émission bi nag di seen xarit El Hadji Tall Ngol Ngol ñu di leen jox daje incha allah beneen yoon ci beneen dëkk ci réew mi jërë ngeen jëf.